président Bassirou Diomaye fay dina dem ni ki gaawo bi yemook ñaar fukki fan ci weeru avril ca Gambie ngir waxtaanee ñu gën a ñoŋal lëkkaloo bi dox ci ñaari réew yi ak président Adama Barrow lu ni mel di doxalin boo xam ne askanu Gambie bi nekk fii ci Ndakaaru rafetlu nanu ko bokk na ci sëñ bi moom ndax jàpp na ne lu ni mel courage dëgg la. so su ñu amee président boo xam ne moom foos xelaatam mooy balaa may dem si bitim réew damay commencé Afrique. loolu moom kontaante bu rëy la ñu jéem a try naka la Afrique nekkee benn ñun yëpp sur suñu jokkawante di dem suñu réew yi tamit naka lañ mën a def ba mu yomba. demu président bi tamit dal dinay jur yaakaar ci ñoom gambien yi ba tax na ñuy sàkku ci ñaari chef d'état yi ñu gën a ñoŋal mbokk gi am ci ñaari réew yi. mais loolu noonu lu naaj la bu ko defee war na ko def bu ko bu ko deful tamit war na ko def parce que Gambie ak Sénégal benn dëkk la moo kenn mënu koo xar ma sama papa sénégalais la sama yaay gambien la. sëñ bi moom chauffeur la moo tax route secondaire yi bokk na si li ko gën a yitteel. am na fi route si yoo xam ne yooyu si biir dëkka bi yoo xam ne daf dee difficile pour taxi driver yi ak yeneen moto yi di daam loolu tamit suñ si juboolee rek dafay baax. beneen attente boo xam ne jamono ji mënatul a xaar mooy ñu ut saafara ci xaalisu Gàmbi. ferry oo ñu bridge ko nga gis suñ movement bi. dafay easy da gis fii dina am sécurité fii dina am sécurité duñ nekk di soona nga war a tukki nga dem bi eega foofu ñu ne la ferry bi is not working nga war a jaar cross Gambia it's like dafa métti daal foog naa boobu tam is very important pour ñu xoolaati ko ñaareel bi mooy um, suñ xaalis bi rate bi te nga dem mu eeg ëllëg nga dem mu wàcca especially ñoo xam ñu ngi def business tey nga dem ñu ne la 60 o ñu wàccee ko dafa xala métti bile wisit ca Gambie mooy ñaareelu voyage bu président bu yees bi dal di amal ci biti réew ginnaaw gi nag bëgg naa dem seeti yeneen naataangoom yi nekk ci réewu jege ñaale yi naka noonu ci sous-région bi